wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan an haadikin mari lim bu toll ci ñaar fukk ci ay million ci suñuy koppar la banque islamique du Sénégal yëkkati tàbbal ko ci ndimbal yi nga xam ne nii jagleel nañ ko ñu loru ci mbënn mi ci dëkk bu tedd bii di Touba ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ab délégation bu takku ñoom nag la kuréel gi di junnatul na nazamaho dalal fii ci kër Serigne tubaa gi ci lañ leen daal di jébal lim bu am solo bi bile. Euh, dañ fi ñëw tey ci ndigalu suñu directeur général madame Aminata Faye Seck teewal fi banque islamique du Sénégal mu ñëw ànd fi ak euh, délégation bu am solo ñëw indi contribution banque islamique du Sénégal gannaaw li fi jot a xew ci jamono yi ñu weesu ndox bu bari bu wàcc fii ci Touba. Euh, am population yu mu impacté mu nangu seen dëkkuwaay yi sëriñ bi sumb ci liggéey bu yaatu pour taxaw ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ci am ay jafe-jafe loolu nag su amee banque islamique kenn waru ko jiitu euh, ci liggéey boobu noonu ndax li ñu lié ak Touba donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, di leen wax ko contribution bu symbolique bi ñu indi daal taxawaay bii lañ fas yéene am Touba lépp loo xam ne sëñ bi sumb na ko incha allahu rabbi bugguñu kenn jiituñu ci di di leen ñaan ngeen yokk ñu tamit ñaan pour que fi ñu bëgg jëmale banque islamique mu egg fa euh, xam nañ yéene bi euh, gis nañ taxawaay yi waaye soxla nañ seen ñaan. ci kàddoog Serigne Youssou Diop doon wax ci turu kuréel gii di Junatun Liman Nazamaho mu ngi rafetlu bu baax a baax a baax. jëf ju am solo ji nga xam ne banque islamique. def na ko. di jotle kàddu yi cant ci turu junatu li man nazamahu muy kuréel bi nga xam ne Cheikh mun Mountakha moo ko taxawal ngir yitte jii nga xam ne da ko yitteel muy jafe-jafe gi waa Touba amoon ci ndox mi bëgg koo saafara moo tax mu jiitu ci ci jëfam waaye sàkk ab kuréel boo xam ne dafa jël ñetti kuréel boole leen Touba ca kanam is bu Tarqiyyah ak commune bu Touba ñetti ñi nag bu ñu xasee ba dugg yoonu murit yëpp dugg nañu. daf cee teg itam ne eh, ñett ngeen waaye man maa leen di ñeenteel moom sëñ Muntaxa ñuy sant nag bu baax baax a baax banque islamique ndax indi nañ fi tey jii ñaar fukki million loolu kon sëñ Babacar ngeen réceptionné ko ñaar fukki million yoo xamante ne li muy feeñal nag yéene la li muy feeñal itam mooy loo xam ne responsabilité sociétale la boo xam ne entreprise bu ne da ko war a xam yéen nag ndok bi ngeen ko xamee. Euh, sen directrice itam ñong koy ñaanal ndam ndax li mu jité mo am ci ndam ndax gis nañ yitté ji nga xamantene feñal nako ci digënté mak Touba. taxaway bi nga xamné ni société bu nek ci dëkk bu tedd bi di Touba waron nako taxaw. banque islamique ganna bu ko xamé kenn jitu leen ci. ndax Touba du wax kenn ne ko euh, bu ne chiffre d'affaires ci Touba amul na la njëriñ kon bu Touba soxla dé ko bayyi xel. xam ne ay ndawi Touba ngi fi environnement mi ngi Touba social mi ngi Touba leneen mi ngi Touba loo xam éducation mi ngi Touba loo xam ne dafa mel ni responsabilité societal sociétale entreprise yi dañ ci am wàll yéen nag xam gu ngeen ko xam moo tax kenn soññu leen ci ngeen defal ko seen bopp kon loolu war nañ nit ki ci la la mu war a def ci lañ koy sant loolu kon ñu ngi leen di sant cant koo xamante ne cantuk sëriñ bi la. di nag benn ci banque yi nga xam ne nii bi liggéey bi tàmbalee ak léegi. ñu ngi fësal seenug ànd ak seenug jàppale ci kuréel gi di junatul li man nazamahon jëf ji nga xam ne ni nag indi nañ ko fii ci kër sëñ tubaa tabal ko ci liggéey bi ab soñña nag ci mboolem ñi nga xam ne nii dañuy yëngu ci dëkk bu tedd bii di Touba wa